awal ndigal te yaru mbokk téléspectateur Mourides Info Mame Awa Diouf moo leen nuyu di leen ziar di am mbégte ak contentement di jàkkaaroo ngeen di leen présenter suñu émission bu bees tàq ñu naan ko jikko jikko nag doon loo am solo ci doomu aadama jikko doon loo xamante ni si suñu borom mu fonk la ndax ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg ko ci taar tagg ko ci askan ma ngi koy tagg ca jikko ndax ma nga naan ko ca alquran wa innaka la ala xulqin aziim jikko fii ci Mourides Info nañ ko bokk wàcc